bara kaddu ci turu Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng waaye ci turu Serigne Amdi Fall mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall jëwriñ Serigne Touba ji nag mi ngi ni toog muy Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir waaye Cheikh Moussa Fall Falilou moom it mi ngi toog ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp ñu ma sa déglu Serigne Saliou Fall sëñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nee na nuyu bokk yëpp nee na bokki murid yëpp njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp Serigne Saliou nee na kàddu yi nag moom du mën a gudd nee na daf ñoo bëgg a yëgal Basiiru moom Serigne Abdou Khadir daanu jox ndigal ci waxtu wu nekk nee muy bàyyi koo ca magam ja di sëriñam di sëriñ Mouhamadou Mountakha nga xam ne fu ñu séenee sëriñ Basiiru suñ xol yëpp sedd na guy ndax xam ne daanu ñun dey dinañu jox ndigal te ñun day ndigal mooy sunu dund amuñu lenn lu dul jëfe baatum ndigal jëfe baatum ndigal bi bu bàyyi koo ci sëriñ bi ndax ñun kat dañoo xamul Cheikh Ibra Fall dañoo mës a dégg ci Cheikh Ibra Fall ci génn bëgg gudul sëriñam bii rek nee kon nag ñi xam ne dañoo nekk jeexitam ne fi. ñun ñi nga xam ni dañoo nekk ay jeexitam ci nekk fi. kon bu ñu dajee ak ñoom ñii. kon ñu leen a gëmee. a gëmee. kon nag. bi. ñee mu ñu yëgal rek ni sëriñ bi. dafay ñëw rek. ngir liggéey bi. ñëw xool si liggéey bi. waaye nag day yewi koogu nan leen fexe ñun bàyyi faal yi ñu fee jógee. mu mel ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ Saliou nee loolu ñun daal mooy suñ bëgg-bëgg leneen nag waruñu koo soxlawoo nee na mii da daan gis bu njëkk bu kilifa yi dee ñëw di fi ñëw fu mel ni Touba day mel ni nit moo faatu ci waa kër sëriñ Touba ñi dem nga doog a ni sëriñ bi dem na. Baye Fall yi nañ leen bàyyi xel toujours ni ñuy def bu sëñ bi dee ñëw ñu bàyyi kër kër yi kenn ku nekk xam nga ka la war a jiitu nga topp ci ginnaawam waaye boo bëggee jiitu nag ka a war a jiitu loolu dafay am lu muy indi te kat bokkul ci. kër Cheikh Ibrahima yaru kër Cheikh Ibrahima Fall nee na bis bu nekk mu ngi koy fàttali ba ci ndogu yi nay ànd akuk dal bu sëriñ bi day ñëw am na ñu war a dox suñu diggante ak moom nee na ñun lu ñuy jëlee ci sëriñ bi na jaar ci ñun ñoom ñii nee na sëriñ bi xam naa kon ñu déglu sëñ bi mu xool. mbooloo mi mbooloo mi bëti yërmande yi ah, jox ñu kàddu yi ñuy jox bu dee laaj liggéey bi fu mu toll ñu wax ko ko waaw nee na kon li des mooy bu yeggee ban ni ko yegg na bu nee jëmaat leen feneen ñu jëm feneen nee dafa yaakaar ne lii ñu def lii dinañ defaat leneen ndax dëkk bi nag waa Kër Serigne Fall xam nañ dëkk bi daa melokaan dafa am aw melokaan woowu moom la war a mel. fi ne. ci ku nekk ku ne. wax ni da ngaa bëgg sëriñ bi. wax ni bi. moo la fi indi. moo la fi dëkk bi. mooy bëggu sëriñ bi. te sëriñ bi kat bëggul dara luul. li yàlla boromam bëgg. ci loolu rek la sëriñ bi nekk. kon na leen déglu sëriñ bi. mu jox ñu kàddu yi ñuy bëgg a jox rek. jërëjëf Mbacke. loolu mooy kàddu sëriñ Saliou sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na mi ngi nuyu Serigne Saliou Fall moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ak mbooleem doomam yi fi teew yëpp di teg nuyoo bi nag ci loxoom nga teg ko ci loxol Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng mu teg ko ci nag loxol Serigne Amdi moom Serigne Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall. nee na mi ngi leen di jottali kàddu yu nuyoo ak kàddu yu siyaare ak cant ak ngërëm yu bàyyi ko nag ci sëriñ bi muy Seex Muhammadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér nee na ni ko sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall léegi doon waxe loolu rek mooy li ci ne du dikkug tàggoo du dikkug yeewi nee na dafa ñëwoon rek ngir xool ci liggéey bi ci ndigalul sëriñ bi bu nu bàyyi ko fii ci sëriñ bi lañuy dellu ngir leeral ko fi ngeen toll waaye nag sëriñ bi ak cantam dafa jiitu ci yéen ndax ni ko sëriñ Saliou waxe xam na ne seenug dund gépp mooy ndigal rek fu ngeen toog la leen fa tax toog mooy déglu ndigal kon saa yu accès ci yéen amul benn sikki sàkka ah, wala ak naatable ne saa yu ndigalul sëriñ bi accès nam ko ab bëggee na koy defee te lii feeñ na ci mooy ndigal lu mujj a ñëw dangay jàpp ne ndigal réer ngeen am ci sëriñ Touba ndax wàccu leen yoon wa maam Cheikh Rahma jaaroon na seen maam bëggee woon sëñ Touba noonu ngeen bëggee njabootu sëñ Touba gi. na mu daan liggéeyale Serigne Touba noonu ngeen di liggéeyale Serigne Touba nee na dégg na ci sëñ Moustapha wax ju ko dugg mu wax ne bala Ibra Fall day mooy su ma ko defar defarloo ab néeg néegum ñax mu defar ko bam mel nam war a mel ma dugg fa di fa jaamu yàlla ak di fa liggéeyal rasulullah ak ma kos almet teg ko ca mu tàkk la yemale ñoom ñaar ñoo ci moom képp loolu nag nee na rafaatale na leen ko ndax loolu moom nee na ñu itam nag li nuy ñaan daal yal na nu Sëriñ Tuubaa tàbbal ca biir loolee ndax ñàkk amuk bëgg ak ñàkk amuk bañ mooy li gën a jafe ci doomu aadama wa mahoo salabul ixtiyaar Serigne Touba moom defal na leen loolu ndax lu sëñ bi bëgg rek amatu leen ci xalaat liggéey bii nag day cosaan ndax dëkk bi ba ko Serigne bi di sanc seen maam maam Cheikh Rahma Fall moo ko gor ànd koog taalibe yi raay bii ñu taxaw mu romb nii xam ngeen ne ba ko Cheikh Mouhamadul Moustapha di tàmbali. seex Ibra joxe woon na ci lu toll ci juróom-benn téeméeri nit bu juumut juróom-ñaar téeméeri nit kon loolu Cheikh Mouhamadul Fadal bi muy natt dëkkub Touba bi mu tegoon ko ci loxol Serigne seex Gaynde Fatma Serigne Cheikh Fall Baye góor moo daan jiitu ca Cheikh Mouhamadul Fadal. ci biir këram la tàmbale woon natt ba kon bu leen sëriñ bi def loo waat lii te at mu jot ngeen di ko def kon loolu dundal la wa jiitu woon rek la ndax dëkk bi kat sëriñ Tuubaa daa dem ba fekk fu kenn mës sa dëkk kenn mësu faa mooy yàlla sunu borom beral ko ko mu gor ko sanc ko tudde ko Tuubaa muy lu leer naññ kon bu demee ba ak lëndëm bi ci bëgg a tàbbi maam Cheikh Ibrahima Fall képp la ko sëñ bi mën a seetloo la maam Thierno waxoon waxoon maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko Ibra Fall waneelu yoon wax ju gudd la nag waaye da caa tànn loolu rek maam Thierno dafa waxoon maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko. booba maam Thierno daa woote ne képp ku bokk ak sëriñ bi ñaja mag ñëpp nañ ñëw képp koo xam ne doom nga ci sëriñ bi ña ca mag ñëw képp koo xam ne bokk na ci sëriñ bi ñëpp nañ ñëw ña ca mën a ñëw koo xam ne ab taalibe nga ña ca mën a ñëw nañ ñëw ca këru bayti ga ba muy dikk ab piccum baa la jël jox ko sëñ Modou Moustapha addiya daal di tàmbali kàddu ya tàmbalee ko ci maam Cheikh na ko Cheikh maag yow nanu yaakaar yàlla te doyloo Serigne Touba te xam ne ñun njabootuk sëñ Mbacke Mor Anta Sali xëyuñu ci ab dëkk waxuma la ci kër kon nan yaakaar yàlla te doyloo sëñ Touba mu ñëw nag ci ñi nga xam ne bokk sëriñ bi lañ mu ne sëriñ Mandoumbe ne ko Mandoumbe yow demal liggéey bu liggéey bi sontoo nga andi ko ci fi ko daan andi koo fekk foofa nga jox ko ko mu ñëw ci taalibe yi dal ci maam Cheikh Ibrahima Fall daal di ko ne Ibrahima Fall waneelu yoon ndax ba ñëpp ngërëmee kat yaa leen gindi woon na ko lëndëm gu metti ga amoon nag moo am ndax ki daan gis ba gisatut moo gën a metti le ki mus a gis kon waneel aw yoon ñëw ci doom yi mu ci seex Muhammadul Fadal mu ne ko mu Muhammadul Fadal seen mag a ngi noonu topp leen ci ginnaawam da ko ne Muhammadul Fadal seen mag a ngoog topp leen ci ginnaawam na ko ñun kat di njabootu sëñ Mbàkke Mor Anta Sali lu am rek. topp sunu mag moo nu ko may bu seen mag nag melut na sun mag seen mag gën bàyyi sun mag ak borom Tuubaa mu ne Serigne Modou Moustapha mu ne ko Mouhamadul Moustapha seera ka ngoog xëccooy dëkk ak i kër amul solo xam nga li am solo mooy fexe ba doy nit ñi boo doyee nit ñi foo nekk ñu fekk la fa kon loolu li ma ci doon leeral mooy setal gi sëriñ bi bëgg ci dëkk bi te muy nag ndax ñim fi wutu di waa kër sëñ Tuubaa seen itte jépp mooy njabootu sëñ Tuubaa gi taalibey sëñ Tuubaa yi dëkkub sëriñ Tuubaa bi xam ngeen ne ñoom ñëpp néew na ñu masaa sëlmal tàkkusaan te wëruñ dëkk bi nag di ko xool lu leen fi neexut ñu dindi ko Cheikh Abdoul Ahad ca Touba Belal la nekk sëriñ Touba feeñu ko am na ci nag loo xam ne du ko mën a leeral waaye ca nam ko nettalee Serigne Touba moo yónnee ci moom ay ndaw jëhëran yónnee ko ab leetar mbind mu tooy xib mooy tere yii mu doon tere ci dëkk bi Cheikh Abdoul Ahad wax ne leetar ba ña doon andi sëñ ma sàmba ca la bokk kon bu ngeen déggee mu wax ne sama bakkan laa ci teg mooy lii sëriñ bi nag xam na ne lim fi bëgg ak lim fi bañ wóor na ko ne bu ko tegee ci seen loxo da ngeen ko ko dindil ndax yàlla daa mën a seetaan de te sëñ Saliou daana wax ne yàlla sunu borom lépp loo xam ne doomu aadama mënal na ko bopp du ko ca dimbale kon lii ñun ñoo ko war a seetalal sunu bopp kon lii ab tàmbali la de waaye bu jeexee jàmm corniche bi moo ciy waaye danañ leen may nag ñu ne ci corniche bi deleb ñaari weer ngir ña fa nekk ñëpp ñu dindi bagage yi nga xam ne dëkku fa ndax ku fa romb ba gis ne mel rawatina nag yi ñu tabax bu dee bagage bu ñu teg ci buntu moom ne na koo jéggale waaye nag tabax ci diggu corniche bi di fi defi bitig loolu moom daa war a dakk bu jàllee itam 120 bi moo ci topp Serigne Saliou moo ko nattoon waxoon it taxoon mu nattu ndax daa waxoon ne Sénégal day fii mu toll mat na fukki million gi doomu aadama yu tegal tuuti bu ñu doxaatee ab diir nag feek fanweeri at lu mu gàtt gàtt li réew mi dana mat lu mat téeméeri million su matee téeméeri million nag ña ca dooni murit lu mu gàtt gàtt dana mat juróom fukki million juróom fukki million yi murit yooyu nag gàtt gàtt la ca màggal si dana mat fanweeri million fanweeri million yi murit nag bu ñu dajee ci benn dëkk te nësuñ ko bàyyiwuñ ko xel ci yoon yi ak duggukaay yi nee na bu boobaa dana andi jafe-jafe. moo tax mbeddum 120 mètres mi moo xam moo xam ne lam ci jublu bu boobaa ndox yi nga xam ne ñoo war a génn ci dëkk bi ak yi war a dugg ci dëkk bi yëpp mën na faa jaar ak yoon kon nag buñ ko sakkee yàq jëfi doomi sëñ Tuubaa lay doon te ñoom seen jëf kenn mënu koo yàq nee na nag bu leen yaakaar na ci yooyu rek lay yem am na yeneen yu ñu desaat bu boobaa sëriñ bi dana ko yónniwaat mu ñëw ba ci yéen. waaw man li ci dàq mooy. waaw bu fekkee la fekk yow mu fekk lu fi. sëñ Moustapha daal nee na boobaa bu fekkee ne dana la fekk. ñu fekk ñu fi waaw ñoom dañ laa boole ci seen biir. Ah, nee na ginnaaw wax nga ko rek. yàlla ma na ko dogal. waaw day bañ. kon ah, ah, bu doon ci ñëw dina ñaan ku wax asal da ngay maa bàyyi ñu itam sëñ Saliou Fall moom sëñ Moustapha. waaw mu ne sëñ Saliou Fall moom sëñ Mourou Moustapha maa ngi xam maa ñoo bokk Seex Rafal sëñ bi nee moom ñi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk Seex Rafal te ma njëkk leen a feeñ te ma njëkk leen a feeñ ñooy doomi sëñ Saliou ñooy doomi sëñ Saliou doom ju baax nag doom ju baax nag war naa mën a waxal baayam war naa mën a waxal baayam lam bëgg a wax ci waxu ko dëkk bi moom dëkk bii moom li ci sëriñ Tuubaa bëgg bu doxee ba teg ko ci loxol Baay Faal yi fa ñuy tàmbalee mooy ku ne ci dëkk ku nekk ci dëkk bi ci li Serigne Touba indi doyu la ñu génne la dëkk bi ñun Baye Fall yi dégg leen dégg leen dégg leen dégg leen rek mi ngi ñëw dégg leen ko rek nee nga dem booba fa nga xam ni ka fa nekk lam indi doy na la loolu Fall sëñ Basiru lu yomb la ah, sëñ Basiru nee na loolu tënk nga lépp seen Moustapha waaw sëñ Moussa nee loolu muy wax. moo njëbal Serigne Fall gépp ko ànd nag nee na dëkk bi moom maami kenn sanc ko dëkkub Serigne Touba la ku nekk ci biir dëkk bi ci li Serigne Touba indi doyu la ñun Baye Fall ñu génne la nga dem ci dëkk ba nga ni ka fa nekk lam indi doy na la nee loolu kat moo a am Mbàkke nee na sëñ Saliou mi ngi tuub loolu mu wax ci sa nee daa waxaale ñëpp nee dëgg nag la la wax nee mi ngi ko tuub baax na Fall. waaw sëñ Fall bisimilah sëñ Basiru sëñ Moussa sëñ Basiru nee na loolu kenn mën cee teg dara kon képp koo xam ni sëñ Basiru nee na sëñ Moussa li nekkoon ci am xelam ci waxu ko ko woon da ko koo far waxal nee li nekkoon ci am xelem ci waxu ko ko woon da ko far waxal. sëñ Moussa nee dalaa wokkal fa sa loxo jotul waaye fii xasan fépp Cheikh Rafa dina ko wokk sëñ Saliou nee na kon ñu dem ca waar wa sëñ daam sëñ daam soo daa ngoog de sëñ Bas man ca kanam de man tey nag laay doog xam daa ko fi ne dox bu rakkaaju la tey laay doog xam ne daam soodu mii nekk wéru sëñ Moussa Mar néew na seen ndigal wéru waaye daam soodu wéru ajagun tàlle seen loxo ñu jàll ca waar wa bisimilah tàllal sa loxo ñu ca waru Baay Faal amin amin amin Mbàkke na ñëpp ñaanal sëriñ Basiru ak wér ak jàmm ci moom ànd ak jëwriñam yi ak mbooloo njëbbat sëriñ Tuubaa gi sëriñ Basiru yàlla na ko yàlla def ci yow na ñëpp toog nag may ko mu dugg bi laa